rafetal rek sëñ bi lii mooy gan yi nga xamante ne am na ñoo xamante ne bi ñuy ñëw sax dañoo euh, xamutoon waxtu bi ñu génn bañ bàyyi leen ko te dëppaat leen jëli du yomb waaye lu mat fukki réew ak juróom yu bokkul yoo xamante ne bi ñoo fi daje nii wuy si wuy si wooteb sëñ Tuubaa bi wuy si la te itam ni nga ko sant woon Cheikh Ahmadou Bassir mu santaat ko kuréel yi liggéey moom ci pour bu màggal gi jàllee rek ñuy xalaat nu ñu mën a def ba waajal màggal gi ñu jëm ci ñu ñuy woo ñu jë mu jóge bitim réew Cheikh Mouhamadou Bassir itam wax na mbooloo mi liggéey ak moom sa yitte ak sa safoo ci mbokk jullit yi nga xamante bi ñoo jóge bitim réew ak nu ñu leen war a toppatoo mboolem jéego yi ñu ci def lépp gis nañ ko fañ nekk toppatoo nañ ko defaraat nañ ko dalal nañ leen bépp matukaay boo xam ne war nañ koo jël ca ba ñuy xalaat di leen tànn ba niñ leen yónnee ay ay billets ñu ñëw ñu dalal leen loolu lépp fexe nañ cee sàmmante ak ni nga xamante bi nan nga ko bëggee woon ba xam nañ ne wax nañ leen lu ci des ci ñun ñu ñuy liggéeyal la muy commission bi nga xam ne mooy relation extérieure mu yor jokkaloo gi ak ak bitim réew ñu di ci liggéey ak sëñ Samba Diaw sëñ ah, ah, ah, Ahmed Salim Dieng ak sëñ Assane Diouf ak ñu mu àndal ndax ay équipe la mais moom moo jiite kër gi nekk Daaru Manaan sumb bépp sëñ Abo itam lépp moom lañ ko àndal ba nga xamante bi biñ ñëwee sëñ sëñ Abo Mbàkke mi nga xam ne moom nga ñu booleel ñu di ñuy dox wàll woowu lépp ñoo ko ànd ak sëñ Abo Sall mi ba nga xamante daal fas nañ yéene gan ñi xamal nañ leen ne lu des ci ñun la kon duñ def dara lu ñaanal la sàkk nga ñaanal ñu ñu am sa ngërëm ndax loolu képp lañ bëgg xam naa ne kon dinañ jox kenn muy Cheikh Mahmoud Adiane mu wax ci turu délégation yi mi nga xam ne moo moo jóge Turquie alhamdulillahi alladi yassara lana أعلام النوبة فحطت بنا الركبان في أرض طوبى لننهل من مشرب أولي الألباب فقد جئناكم سيدي عالي الجناب وها هم الأحباب قد وقفنا بالباب فلا تحرمونا ولا تطردونا من الجناب يا سيدي كلنا فرح وسرور وبهجة بهذا الكرنفال المحمدي الذي يقوم تحت عنايتكم وأنظاركم الكل يعتريه نوبات روحيه قلبيه عاليه لا شك ان هذه الامداد مصدرها قلبكم الطاهر سيدي جئنا وكلنا سرور وكلنا امل ونشم رائحه التجديد للاسلام والمسلمين في هذه القاره المباركه على ايديكم فانتم تجددون العهد والوعد وتحيون السنه لذلك نشد ونبارك في مساعيكم سيدي الحبيب عيون الأمة متجهة إليكم ترقب منكم الهمة المحمدية الأحمدية العالية سيدي كلنا أمل أن تصنعوا من طوبة كوفة ثانية في التاريخ كلنا أمل أن تصنعوا من طوبة البصر بعراقتها كلنا أمل أن تصنعوا من طوبى بغداد في جمالها وعلومها كلنا أمل أن تكون طوبى تفوح رائحة الأندلس منها سيدي لا أريد أن أطيل عليكم فالمقام مقام حال لا مقام قال وكما عبرت عنها بذلك بأبيات جدي في مثل هذه الساعات نحن سكوت والهوى يتكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشيخ يسلم عليكم ويشكركم على حضوركم ومشاركتكم معه في هذا الحفل الجليل ألا وهو ذكرى لخروج الشيخ أحمد بامبا إلى المنفى في 1895 wa yaqul bi annahu kulluhu farax wa bahja wa wamtinaan li annakum laqad taraktum mashaaxilakum li ilaayi kalimatillah bi kalimati wa xaal bi ilaayi kalimatillah idan huwa yaqul bi annahu yad'u lakum wa yatlu minkum du'a kadalik li eh, an yaani na'tasim bi hablillahi almatin fi kulli waqtin wahin. Sheikh is greeting you. He is very pleased and uh, uh, to receive you here in your country, in Touba. Uh, and you leave everything and you come share with him this great moment that is commemorating the departure of Sheikh Ahmed Bamba to the deportation. I prefer to say deportation, not exile, because Sheikh Ahmad Bamba was forced eh, and he left everything behind to uh, uh, raise and to consolidate, you know, the word of Allah and the Islamic, you know, uh, precept. So that he's very, you know, he said he can't express, you know, his joy and, you know, Uh, uh, pleasure to be with you here. And he's praying for you. And uh, he wants that you pray for him that he will, you know, achieve, you know, his goal. Ala wa hiya, i'la, ala wa huwa, i'la kalimatullah. Cheikh yaskurukum wa yaqul lakum marhaban bikum fi ay waqt fi madinatikum wa marhaban bikum fi Touba. Assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu